salaamaaleykum permettre leen ma d' abord ma nuyu ñi nga xam ni ñoom andal àndal si délégation boo xam ne waajuñu ko dañoo tëb rek ni doon dañuy ñëw seet si ñi nga xam ni ñoom ñoo yore liggéey bi nga xam ni ñooy binduwaat ñi nga xam ni dañuy bindu ci liste yi wala ñuy changé bokk fi nga xamee ni fi la ñu waroon a voté ñu ñëw doon leen nemm ko si eh, di xool seen liggéey xool seen i jafe-jafe xool aussi naka ñun naka lañ leen mën appuyer ak naka lañ mën def ban geste lañ mën def pour gën a yëwénal li nga xam ni seen nekkin donc dugg nañu seet leen fekk leen si jàmm mbooro itam nak loolu la mus a xam à chaque fois que bu ñu tijjee liste xëy na dinañu dégg ci yeneen localité wala yeneen gox ay jafe-jafe mais ñun mbooro mosuñoo dégg loolu li ko waral mooy suñu ay wéyjur rek ñoo koy jiite en plus itam mbooro benn bokk la benn famille kon ñun am jafe-jafe donc tànk yi nekkul woon dara rek lu dul tànk ñëw nemmiku si leen ndax nag waaw góor dina ñu rek wax waaw ci liggéey bu rafet bi nga xam ne yéen a ngi koy def pour ñu waajal jëm ci ay élection yoo xam ay élection mm. xaar xaar xaar bu am solo la ku na ci li nga xam ni waral suñu génn ba léeg-léeg ñu dox dégg ni Malick amul yitte te fekk na du ni la au fond ci ñun dañoo dañoo mais souvent borom xam-xam di wax ni nit dina bëggandoo ñaari mbir yoo xam ni du mën a ànd mooy dañuy bëgg léeg-léeg fu gis la te itam nga ko loolu dafay dafa dul ñaar yoo xam ne yu compatible yu mën a ànd parce que lii tax ci côté bu ñu la natt nga war koo mën a mate moo lay xañ jot goo xam ni du ñu def fu ñu gëstu gis la ba tax na ñun suñu ay jéego suñu ay doxi du dara lu dul préparer suñu bopp ci wàllu xam-xam ci wàllu relation waaye itam ci wàllu ay relation surtout au niveau international ba tax na fu nekk ñi ngi fay dugg en Europe en Amérique en Asie pour di jaay turu Mboro pour di préparer ay xarit pour di préparer ay relation di préparer ay bailleur di préparer ay financier pour nak diko waral moy dëkk do taxaw ni jox leen mako nga jox ñu yan la ko nga and ak ñom naan leen ñew leen ñew leen ñew leen dimbali ma ci naka moy laaj nga leen ko bañ jox leen ko ñu ni fan nga ñu jëme ñu nga naan nga leen laajaat yoon ngay sukkandiku waat ci ñoom sukkandiku ci ñoom benn yoon ñu fal la nga bëgg sukkandiku ci ñoom ñaari yoon pour ñu tabaxal la dafay nekk loo xam lu mënul nekk la te boobu bokk ci li wax ni commune ko bëgg tabax ci ay recette commune aussi bu yaakaar lul ay recette pour pour pour génn ci jafe-jafe commune boobu dafay tardé tey commune yi nga xam ne ñoo man ci Sénégal ñoo raw ci Sénégal du nekkul commune yi nga xam ni sax seen ñi ko jiite dañoo nekk ay ministre mais mooy commune yi nga xam ni seen ñi ko ŋànk dañoo am relation internationale dañoo am ginnaaw dañuy jaay seen dëkk à l'international loolu nag ñun bokk na ci li nga xam ni moom la ñu proposé Mboro wax leen ni jox leen ñu commune bi ñu tabax dëkk bi ñu tabax dëkk bi ci naka pas ci li nga xam ni moom la ñu xaar ci ay recette wala ci ay juuti mais recette yooyu dinañ ko dugal fan ko war a dugal waaye dañ koy xeeb loolu pour liggéeye ko dëkk bi li ñu fas yéene liggéeye dëkk bi suñu taxawaay lay doon suñu ay relation la bi ñu wute ji à l'international loolu bokk na ci li nga xam ni mooy waral léeg du dundu gis ci biir dëkk bi ndax du duñu Mboro dafa àgg fi mu àgg ci ñun am solo si mu am ci ñun ñuy toog di xaar ba ñu jox ñu dëkk bi ngay soog a wëri relation yooyu bala nga ko am daanaka kon at yu bari jàll wala nga tardé dégg dès naa nga xam ne am nañ ci ay mbébét am nañ ci ay projet la ñuy commencé taxawaay bi pour bis bu ñu yàlla dénkee dañuy dem du ñu fi nekk di fëgg bunt di xaar ku ñu tijjil dañuy ñëw rek bés lokoy dugg lijjanti li ñuy yi jëlee ko fa ñëw dugal ko si ci mbooro loolu bokk na ci li nga xam ni moo waral lekk léeg nu gis ci dëkk bi